Assalamualaikum wa rahmatullahi wa Senegal mbokk sénégalais yi nuyu di len xiar di leen ñaanal jàmm alhamdulilahi rabbil alamin euh, bu ma déggee Mollah Morgun comme ni mu waxé ci Ousmane dunkara wa ñu contane ci trop sax lol lol lol lol waaw comme sénégalais ñu ci bari yeen activiste yi ñu ci bari tay bu sénégalais yi demee ba comprendre yenn yi bu ngeen xoolee démb Ousmane dunkara jàmbaar la ci combat bi wane ba pare dafa am ñoo xam ne moom ku taxaw yeewoon la sa digg lal ñu ne la kii dañ koo jënd dañ koo jënd wax dëgg yàlla moom doo gëm ci ku am xel laa ci ku am xel mën a ràññee waxuma ku xamul dara xam ngeen ñu ne Ousmane Tounkara man moom ku ma woon tey kii dañ koo jënd dañ ko fay wala xaalis moo tax muy xeex moom duma ko gëm ndax tey boo dégloo ay waxam nga déglu ay combat am nga gis xeex yi ma xeex yëpp wax dëgg yàlla am na yoo xam ne yéen activistes yi yéen ci war a jàppalante ndax ndëgg sërëx yi dafa bëri naxaan naxante yu bari ci combat bi ndëgg sërëx yi ñuy nax ay nit di fooy ay doomu aadama mais bu fekkee mënoo leen ràññee ci Ousmane Tounkara invité Moula Morgan boo ko invité kenn ñëw dugg ci ruube ak nu mu ci mënta duggee bu fekkee mënoo leen ràññee loolu kon ku ku ràññewut loolu kon xeex bi kon comprendre kon lan mooy combat bi quoi comprendre kon lan mooy combat bi Euh, mula Morgan malay xamal len ki sénégalais yi lay déglu ni ñi ñoy sénégalais Ousmane Tunkara dan ko fi solal caayam di déglu partager buy def ay live nit ñu bare ba diko ko déglu tey yow la billahi wallahi dara safu len nga joom ben suba lo xamni heureul la rek ñu solo la silib lolu de ko sóoraale bu baakha baakha baakha baakha baax sa bis meun na ñew nga moytu li nga def ni la da ngay ni da ngay ni and ak ño xamni comprendre ñu ben tey exemple fii di nga dégg tey nit naan la ay ay mbërum làmb diggeen dégg tey nit di leen wax ci làmb sénégalais tey même patriote bi combat bu ñu la gisoon nga photo benn mbirum làmb ñoom jàpp nañ ni yow waroo photo ak làmb ko waroo wax ak exemple comme mu nekk sa xarit maanaam lii dafa am loo xam ne lu ñu bokk la ci wàllum xeex politique dëkk bi lu jëm kanam mais ah loolu bu jeexee ay jullit lañ ay doomu aadama lañ ay nit lañ nit. nit ku nite nit ku am xel laa nit ku ab waxuma dof waxuma dof man mii wallaahi tallaahi Waly Seck teguma ko fenn wallaahi Youssou Ndour teguma ko fenn wallaahi mbërum làmb yi am na mbërum làmb yu ma xam yoo xamante ni si dafa leen xam ñu nekk ay champion ñu xamante bu baax a baax a baax a baax te nekkuñu dara ci man ay loo xam ne ay star wala benn affaire mais yéen tey kon da ngeen jàpp ni kon tey comme comme ça daal ku taxaw ku taxaw ak benn mbërum làmb rek wala taxaw ak kenn ku am tuur rek wala benn affaire rek kooku léegi dafa génn combat bi wala dara loolu yëfi dof la loolu yëfi jéeyil la loolu yëfu xale la du yëfu nit bu leen jaawale comme xamante wala déggante ak combat bi il faut que moo tax yéen activiste la bi da ngeen comprendre nit ñi ndax dama dégg Mollah Morgun ci kii bi mu tudd ay tour ñoo xam ne ay grande patriote ay xeexkat ñoo xam ne comprendre nañ combat bi mais waruñu réaliser noonu ci diggante Gabriel ak kii yéen affaire u naxaate yi yéen Sonko ko dimbali xawma loi Sénégal nu muy demee mais Sonko laax peesu Adji Sarr bii ngeen di wax waxuma la Adji Sarr mënoon na nekk benn soxna su tudd Maymuna wala soxna su tudd Daba tey nit koo xam ne warut lu xam ngeen luy saay-saay moo tax dëkk bi alhamdulilah ba ba yàlla dimbalee rek yenn politiciens yi ba yenn ndëgg sërëx yi dugguñu ci ba yenn ndëgg sërëx yi dalu leen mais tey nit tey xanaa xamoo leen nit mën na baax du violkat du seq ak jigéen warut jigéen jigéen doon loo xam ne lu garaaw la boo delloo ca alquran ba yusuf alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko musal mu doon koo xam ne moom it doon ko fegu mais jigéen tey nit tey mën na ñëw warul jigéen warul dara warul moom xelam sax nekku ci loo ci jabaram la nekk jigéen ñëw futti ko ba set saytaane jàpp ko mu njaaloog jigéen bi te bonu demoone te du kat de ndax warul jigéen jigéen bi moo ko sàkku ñii dañ ko bëgg a fitnaal bëgg ko pees bu boobaa nan la Sénégalais yi di doxalee fët fët kii la moo ne ki bon mooy ki nga xam ne moo jóg doxi tànkam sol dàllam ci coobare boppam di wër jigéen ngir sëy di wër jigéen ngir njaaloo kooku mooy ki bon mais xool leen PS ndëgg sërëf fu nekk la mën a jóge ba ci yow activiste bi mën ngaa toog tey nga nekk nit ku mel ni Gabriel Gàkk wa Gabriel kan xawma kan ñëw léegi ñoom def la loo xam ne man man man tey ku mu mënta doon dangay ubbi nit ñi sa sa dof rek dof dof katakay nit kon mooy comme man patriote laa lii laa gëm sam beneen doomu sénégalais du ma ak moom ndax APR la nekk wala kii lii la wala kii lii ci jëflante lañ wax ci ay muamala jëflante mais nit ak nit dañuy dëkk mën nañ xamante mais nekku ne xamanteeg nit ki tax na yow da nga bon xamanteeg nit ki tax nga yow moom nga àndal xaw ma dégg ngeen ma xaw ma déggoon léegi nag askan wu toll fii nag ngeen bëgg yéen comme tey Gabriel tey mën na ñëw teg dilam ci kii mu dugg ci live bi ba mu ci duggee ñëw saboote live bi dégg naa live bi kii naa ko mu saboté ko léegi ngeen bëgg a jàpp ni Ousmane Tounkara léegi mais ni di xool da ngeen di xool ay côté doomu aadama ngeen jàpp ni Ousmane Tounkara léegi moo teg dil kii wala benn affaire wala kii wax dëgg yàlla xel bu suufee la ndax loolu kuy def dara day doon nit koo xam dañ lay jënd day doon nit koo xam ne li ngay def danga koy def pour intérêt dang koy def pour yow am kulo ki mom xamal na len ni comme Macky Sall le ñëk xam Ousmane Sonko bu fekkonté ni maletu xaliss la soxla te fi wék wakat yépp dofuñu ku melni Ousmane Tunkara ba ci Moula Morgan mi tay mu bëggoon xaliss bëgg ay maletu xaliss da koy am da koy am facilement mais kon dege ni dege ni xamé ngeen rañé ngeen ki am yo xamné du ay débat amna yo xamné activiste wala kenen ki waroo len ci dugg da ngeen wara defal sénégalais ngeen xamal len ni li live la bu ndaw bu gatt bu jall bu ki après ngeen léral li leen war mooy ngeen leeral ndëgg sarax yi Gabriel def ngeen ñëw tegaat ko ci table bi ngeen leeral foofu ne leen gis ngeen lii de bokk na ci xeetu naxe yi gis ngeen lii de bokk na ci xeetu dóor yi looloo leen war mais comme pas diggante Ousmane Tounkara ak euh, ak kii donte nag ñoom ñaar ñëpp amul kenn ku ma ciy déggante ñoom ñaar ñëpp amul kenn ku ma ci frage pour du wax la nii loo xam ni ay combattant lan ay xeexkat lan may seede comme li nga xam ni moom laa gis moom laa xam gis ñuy xeex loo xam ne lu am solo ci Sénégal côté boobu laay waxee ma tëddee kuñ jaaxa jaay meeru dara mais du dara mais ñu bàyyi comme sunu xeetu doxalin yi daal yooyu doon na loo xam ne rafetul ay nit bu nu bu nu kiiwee te Ousmane Tounkara wax na leen ko nit day juum barke alxuraan même bu du dara nit day juum ba përiyee nit ku nit koo xam ne jàpp nga ni nit du juum kooku suufee la dof la ñàkk a jàng la ñàkk xam-xam la nit day juum ba përiyee tamit juum sax na dama mën a nekk. mais ku juum rek ngeen bëgg ko topp ci juumteem xol leen juumte bam mu ndax li lu yaq senegal xol leen ndax tay dafa am juum am ndax ki dafa dem yeen lan ngeen di wax ko ku jaay ngorom di andak ay politiciens pour jaay ngorom di fenal askan wi ku jaay ngorom ci lo xamanteni si daf leen bëgg soxlu kuy def yefi nafiq ko ngeen wara dal mais ay juum ak ay nit ki fi lu gàtt lu ñak fay da ngeen ñi tankal ci seen ki wara wax ci yenen di ñu sonal fo tourner Moula Morgan Ousmane tonkara ba mo inviter ki wax leen ci carrière comme ndëgg sërëx yi mu teg loolu ngeen wax bu dee ay nit ngeen bu dee ay nit yu matuur barke yàlla dëgg la yàlla bëgg Ousmane Tounkara nekkul ku may dégganteeg moom Moula Morgan nekkul ku may dégganteeg moom démb laa ko bàyyi message ko barke bu ma déggee laaj bi ndax lu mel ni xam naa ne fii lay lu mel ni dana ci am ma bàyyi ko benn audio tontuwuma benn audio boo xam ne nekk bëggoon dégganteeg moom pour bu ma dégganteeg ma ne ko bu kiiwee nga taxawee nii far taxawee na noonu soxla mu ko dégg yàlla xam na ni fii laay waxee du lenn Sénégal ngeen bàyyi ni ngeen di def yéen nit bu leen xeexal yéen bu fekkonte ni nit yu matul ñoo topp seen ginnaaw Ousmane Tounkara yi nit matul la daf leen di mandare fànkuwula bu fekkonte ni nit ku matut la moom waaye moom heureusement moom nit ku mat la dina ne ñi jaruñu xeexal ñii duñ ay nit mais gis ngeen chaque jour ñi leen di xeexal dañ leen a yërëm loolooy kilifa mooy nit ki ngay def maanaam da ngay comprendre askan wi ngay xeexal nañ la moom it ndokk far comprendre na sax lii far moo tax lii feregewu ko moo tax tamit yéen tamit ku ci yu mel nii daal bu la sonal demal nan sa ndox nga tëdd naan ataay lekk sa gerte jaaf xamni askan wi yeewoo guñ te da nga leen war a en tout cas dal li du débat ay mola mor gën ak ay ki wak du débat gën ba ci xel bu baax bu baax baax gën partager mu yaatu te xamni tamit amna ay dóor ndëgg seurex yu ñew gën xamni ba ci yu mel nii da ci da ci am tay tay yeen pat yeen ñi ngeen xamni da ngeen di woote wo patriote ni da ngeen di and ak rew meek yoy dina am ñu leen ni nax ñew jege ci seen biir pour pégé leen jege ci seen biir pour wané ni affaire aji saar bi moom jàpp leen ne moom contraire bi lay demee léegi waxoon naa leen ko te gis ngeen ko fi mu toll ni télé boo leen fi mënta dem ci Sénégal yëpp ba ci RTS ku fa wax ci Ousmane Sonko waa RTS dañuy dëggal ni affaire bi ay dil la dañuy dëggal ni affaire bi ay dil la affaire bi ay dil la loolu si jublu lu luñ si jublu mooy ñun bokkuñu ci mooy ne comme ne affaire bi aji saar la affaire bi kii la euh, euh, maître El Hadj la affaire bi du dëgg léegi nañ ko fay te jàmm mooy lépp léegi nanu dox jàmm loolu jàpp leen ni mooy seen ndëgg sërëx bu bees bi fi mu toll nii affaire Adji moo tooñ ak tooñut moom koo fëgg-fëggal ci ñoom waa kër Macky yeeg ku mu mënta doon ak ku képp ku ci bokkoon ñëpp dinañ ci rasu tey wane ne ndax loolooy seen combat bi nga xamante ni si tey moom la ñuy mëne muy jéem a gëmloo Sénégalais yi affaire bii nii du dëgg waaye jàmmi réew mi kon na dossier bi jeex daal na jeex tàkk léegi ñu fay ko noonu te warul jeexee noonu affaire bi léegi contraire bi lañuy bañ ngeen dugg ci muy lan muy xale yi de muy lan muy jëf ju ñaaw ji muy lan muy ay ki nga xamante ni si maanaam yow lan jox mbirum réew mi mu tegu sa loxo ci ay dossiers yu sérieux jaa sa kaw nga falsifié dossier bi yooyu la ñuy bëgg nëbb nëbbal moo tax dina am ñu bokk ci ñoo xam ne ci cas Adji Sarr la faroon koo ci gis muy live dugg si naan leen Adji Sarr àndatul ak moom bëgg ko beddi ay dóor la dóor yi mooy lan mooy danoo bëgg affaire bi nañ ko fay li lay wax yëpp après seen kii fa lay joxe coow li nañ ko fay ñu kii Sénégal dem feneen comme Californie ni mu duggee rek waxee laay fa mi nii ñàngal bëndal xam nga ne leen Adji Sarr ñàngal tu nii xam nga net ne leen fenkat la moom du kiyam kiiwut fi mu toll nii point boobu Californie duggee ñëpp moom la ñuy duggee ngeen baa ci xel mooy dossier boobu nañ ko tegal fële ñu wax affaire xaal ñu wax affaire u dëkk bi dox ñu wax affaire kii kañ xanaa tey ngeen wax affaire u dëkk bi dox ak liggéey ak lii ak loolu ay dóor la yoo xam ne pour na ngeen fàtte ñi dee pour na ngeen fàtte affaire yi garaaw yi nga xam ne moo nekk ci suuf bu ngeen ñàkkee fayda nag ba yooyu moom ñu fàtte ko ci dëkk bu ñàkk justice ñi ci dëkk boo xam ne mën nga xëy rek sosal nit du mujj fenn ay nit dee ci du mujj fenn ci dëkk boo xam ne yow mën ngaa am say problème nga dem fële ñu jël sa sa CVP sa CV xawma soppi ko ci dëkk bu mel nii bu ñàkk wóor nii ah wax dëgg yàlla joroo leen topp seen ginnaaw di xeexal joroo leen topp seen ginnaaw billahi di xeexal joroo leen ko barke yàlla bu fekkee lii fi leen toll ñëpp nañ génn wax ci jëf ji dafa ñaaw lii dafa ñaaw dafa ñaaw dëgg-dëgg ñaaw te bu leen ko fàtte seen live yëpp fii ba 2023 sénégalais moo gaaw fàtte bu leen fàtte teg table mooy ministre kii xawma lu mu tudd ministre la xawma lu mu tudd mooy ki yoroon dossier yi changé CVP bi CV bi kooku noonu kenn waru ko fàtte jëf jooju avocat maître El Hadj Diouf kenn waru ko fàtte pour lii dañ ko war a topp ci yoon chaque jour ngeen koy fàttali sénégalais yi ndax dañoo gaaw fàtte ñaari fan ñetti fan ñu naan attaay yooyu gerte caaf fàtte nan yooyu nekk ci yeneen wóor na yàlla mën nga defaat yeneen sax fàtte nan ko ñaata yu ñaaw kañ ba kañ seen xeex bi am na bopp waaye amut geen ana geen ga ndax ba kañ dama leen di laaj dañuy rey nit ñu ne ah nañ xaar ba ñu génne nit ki bu génnee koor bi buñ génnee koor ba léegi ngeen jéegi jéggi loola teg fële ñu tëj nit ngeen ne ngeen xaar ba ñu kii ko ñu dagg bopp nit ngeen ne dañuy xaar ba nu ba nu ba nu kii ko ñu xëpp nit ndox bu tàng ngeen ne mais ba kañ ba kañ ba kañ kañ lay yem kañ lay arrêté kañ la ñuy mën ne ne ah léegi kat doy na stop léegi kat lii dootu fi amati Sénégal nag da ngeen toll ci jëfi ñaaw yi dootu fi amati. motax waxon na len kon ne len tamit ngeen balma ndax pass bi dafa am luma fi permettre ci euh Assane Diagne ta dama koy respecter ñewuma fi pour wax serigne wala pour wax dara mais tamit bu ngeen déggé dal kenn tamit ñu ñew mu nekk nit diine wala dara di len wax waxi jamm bu tay ji tay tay tay tay tay tay lay xalat ñew di len wax waxi jamm pour dossier bobu dañ ko sul ci maf bi la jeexna fi la yam ak ñom jeexna dépasser wuma yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla yàlla def jàmm ci dëkk Sénégal bi waaye jàmm tamit ngeen xam ne tamit dëgg-dëgg yàlla nañu yàlla may jàmm jàmm mooy lépp jàmm mooy tax nit ñi mën a mën a mën a am liñ bëgg jàmm mooy kii kon yàlla na fi yàlla def jàmm kenn ñaan fi ay sunu njiit yàlla na yàlla wëlbati seen ñu nekk nit jaareel élection yi si yoon génn dem seen yoon ci jàmm ak ci salaam kenn bañ a dee daray nit bañ a lakk ndax jàmm rek mooy lépp allahuma anta salaam wa minka salaamu tabaarakta yaa zal jalaal wal ikram mais utiliser leen seen moyen waaw Baye Ousmane Dramé ñu ngi lay siyaar bu baax di la bëgge ñu la ñaanal jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla fay en tout cas daal wax dëgg yàlla Ousmane Tounkara daal wul moom ci Sénégal li leen defal koo xam ne fayoo leen ko dara mayoo leen ko tous tous dërëm <laughs> dégg ngeen te li mu wax tamit lu am solo tamit la wax tamit nee na fi mu toll ni affaire kii bi te wul wallaahi noonu la demee noonu la demee lii mooy sénégalais nee na ci affaire xaw ma Pastef dañ doon laaj jara pour Ousmane Sonko mille cinq cent dollars la joxe mille cinq cent dollars mais ñey ëpp ca panel yan ko doon laaj ci kii boo xoolee fukki nit ay joxe yeneen ñëpp dañuy rasu duñ joxe bu dara desu du joxe génn nee na ñuy wax ñu baree bari bu ñuy génn muy def kii moom mooy génn loolu topp leen loolu mooy CV bu mu wax ne bu dafa set ak yooyu ngeen topp loolu ndax dëgg la wala du dëgg maanaam foofu ngeen di xoolee kon kii dóor mooy moo mën kuy saaga kon foofu ngeen di xoolee wóor na ma ni noona la ko defee ay 1500 lay joxe am na ñoo xam ne waxuma la 1500 waaye benn one dollar duñ ko génne jox ko dañuy raay ak nit ñi ci wax rek ci panel di sonal nit ñi duñ def dara bu génn jotee kenn du génn lii mooy sénégalais li muy wax moom dañ ko dund xam ko te ku nekk xam na li wax fii da ngay gis panel boo xam juróom benn fukki nit ñoo fay nekk wallaahi seen mbokkum patriote boobu ba di metti ñetti nit ay génn ñetti nit ñeneen ñi booy làkke làkke bu ëpp sax <laughs> nga tànqal leen am ñoo xamni sax mujj gi sax di ñew sa naan ay laacc dafa metté ak yoy mané leen saay bu leen fonto ni ñay laacc dafa met yow bi jël sa xaar ñak ko paré joxé di laacc yow kay li ngay def kay mo metti ay laacc laacc laacc gi yow ki ngay laacc rek laacc ko jox ma jox ma jox ma moy lolu wala xikki door moy mën sik mo mën kuy saga ousmane ousmane tunkara mi ko gis xamni ni ousmane drame ba lay xiar baax ma jaawé la ousmane tunkara rek war ousmane tunkara ndax yi wala min xam nga naan ousmane drame ousmane tunkara li nga xamante ni si daal def na ko daal en tout cas ci ci kii bi wax dëgg fa yàlla nit bu dee juumtalit ñu xam ne nit day juum comme ni mu leen ko waxee te te ku fi nekk fii Sénégal bu ñu losalee ca ay ngembaraay gi ci suuf ngeen bàyyi ci xel bu baax baax ku nekk na nga xaar bis bi nga ñëwee nga juum wallahi mola bis dina ñëw nga juum incha allah kuy dëkke wax ay paan wax ay milliards yi wax jël ay vidéo teg du ñàkk bis nga ñëw nga juum seen yéene yàlla leen yàlla fay seen yéene muy defar mais du ñàkk bis nga indi fi information wérut loo xam da ngay jàpp ni wér na fekk wérut loolu dara mais <laughs> bu lu wérut kii nga juum ci rek bu la kenn njëkk génnal ne leen lii damaa juum damaa foogoon ni lii la demee fekk demeewu noonu ndax yow defar moo la tax a jóg doo ab avocat doo ab àttekat ay information rek la lay jox nga am ci njortu nga am ci kii nga ñëw indi teg même loolu boo ci juumoon sax Sénégal ay dañ la war a comprendre pas ñu ne kii day fenn da ngeen di xool yéeni nit ki da ngeen di xool kii lan moo ko tax a jóg mais sénégalais xamut loolu da koy dimbali di ci sonn wër ay mbir nga ñëw fële nga juum mais ku dul juum dafa am nit de juum sama gars yi nit de juum ba parier te ñun dañoo dëgguwut fii ku fi solal caaya Ousmane Tounkara mii laay fa moo doon gën a bëri fuuf fuuf fuuf barke yàlla laay fu kii laay fu kii tey kii moo koy ëppale sénégalais mooy di day solal caaya su mu solal sirib Mollah sa slip mi ngi ñëw ñii sénégalais yii jarul ngay kii sa doom wala di mer sa xarit wala di kii dan lay jaxase yàq sa bopp naan la kii affaire bi dafa ko complot affaire bi ba muy kii dafa teg dil ak kii dafa bàyyi ba kii ñëw rek mu saraxe la dafa soxor dafa kii ñun yooyu baaxul nit ku am xel waxee ku am xel du atte benn mbir bu ñëwee nii mais day xool avant xool kii ban nit la jàngi kii ba doomu aadama Ousmane Tounkara du nit ko ñuy jënd moom Ousmane Tounkara moom lu nekk moom nit mën nga ne lii wala lale wala lale ci gis lan nga ko xamal waaye ku nuy jënd moom kuy déglu xam nit am ay njàngat dangay xam ne kii nekkul ku ñuy jënd. da ngay xam ni kii xeexam bii moom ut ci xaalis xaw ma lu ci xaw ma lan la ci ut waaye xaalis moom bokku ci ay pour dem ànd ak ay caaxaankat bokku ci ci xeexam loolu moom da ko ciy gis wax dëgg yàlla pour ñu waxante dëgg rek seede te yàlla suñu borom tax wala tamit noonu tamit ngeen xam ne daal. mooy loolu sama gars bu leen Sénégalais yi jaxasee bu leen ay nit toog fii dugg seen biir kenn juum ngeen ñëw kii ko sa juuma gi ñëw de ku nekk day juum barke yàlla Sénégalais xamul juum Sénégalais xamul juum fii ñëpp nit day juum Sonko mii ngeen topp nii ci ginnaaw mën na xëy suba juuma juum ba përi bu boobaa nan ngeen di def mais nit day juum affaire nit la du ay question ay baax bon mais juumte moo ànd ak doomu aadama ni ngay toogee di nelaw di gëmmentu ni ngay toogee jékki-jékki xiif ni ngay lekkee ni ngay kiwee noonu ngay juumee dafa bokk ci dundu doomu aadama maa tay moo bon waaye juum amul problème maa tay nit ki def maa tay nit ko saay-saay nit ku yor intention bon mais bu leen jaawale ay juum ak saay-saay yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla nu yàlla may tamit ñu dëggu ñiy déglu dëggu ñiy wax dëggu ñi nga xamante ci tamit ñi ngi xeex tamit dañuy xeex ñu dëggu ci loolu rek am solo mooy dëggu yàlla ñu yàlla defal ñu dëggu ngeen bàyyi ni ngeen di def solal nit caayo suba ngembalaa nga ci suuf foo leen toog mën a tàgg nit nii léegi suba xas ko ci looloon tegut fenn ci loo xam ne teguwul fenn Ousmane Tounkara deful tus deful dara wax ji ku ko dégg xam ne ndaw see da koo manipuler te ndaw see ku muus la ku yeewu ku mën a jaay Sénégal lekk seen njëg la man ba mu ko dégloo laa kii damaa ree ba sonn ni ndaw si tey moom dominé la leen <laughs> fowee na leen dëgg dëgg dëgg mayul dafa daf daf daf leen fa loolu moo laa sax day dafa xaw a jaxasoo ci benn côté boo ko delloo ci benn côté kii da koo kii ndaw si fi mu leen dikkee kii bandi dëgg la ndaw si bandi dëgg la Gabriel bii génn kii saay-saay dëgg dëgg dëgg dëgg ko am xel mais loolu de mën na la bett kii la mais bu doon tey nga toog ak sa sago ni nga toogee nii nga teg sa laaj nga taaj nga baax li nga bëgg a wax ak ñu perti perturbé la ci sa wax yooyu dafa am de dafa am ilmul kalaam ñi dañ ko am dafa am dafa am xam-xamu wax nit mën na ñëw fekk la ngay wax dëgg li ngay wax yëpp dëgg bu doon yow rek yaa toog tey sa live nga teg sa ecran ngay wax yow li nga bëgg a wax lépp ci dëgg di nga mu jub mais am na ñoo xam dañoo mën a wax tey mën na la fekk ngay wax ni yéen ñaar ngeen wax bu ngeen defee débat rek ñu gañ dañuy mel ni ñoo am dëgg de looloo ilmul kalaam dañ lay dañ lay jaxase barki yàlla li nga bëggoon wax doo ko wax li nga bëggoon indi doo ko indi Gabriel lii leen def ku mën a wax ku xam wax waaye yàlla xam na ni bu ngeen ma mayoon keroog ma dugg wala tey ñu def tey débat dem ngeen xam ne seen ndaw si tappalekat la loolu day am te wax tamit moo demee noonu tam ngeen xam ko yéen ay nit ñooy wax a yéen nekkul ay journaliste ay nit yoo xam ne danoo ay nit yoo xam ne danoo bëgg réew ñoo ñëw di wax ak yéen lii ay xam la yu may joxe dafa am yoo xam ne tey gis ngeen football ñi nekk ca man du ma jour waaye tey bu ñu doon football tey Sadio Mané moo ma dàqa football pour fuuf waaye man su toogee ci kaw kii ba dinaa gis tey foo xam ne waroon na fa mën a jaareel bal bi te moom moo ma dàqa kii mais ki nekk ci terrain bi di football moko wax ji ñoyam rek tay mën nga ñew tay jekki jekki ne mbëpp ben affaire dikkal nah, la tay bis bobu mën nga ko baña a wala ben affaire mais koku mën na wax ba yay la ci ci lamine ci lo xamne dara du ci deug te lepp lu wax ay fenn la léegi bala nga koy xam nga tok sa kër ki deglu ak ki supporte ki bokut yalla leen yalla jappale ci seen wax yi li ngeen wax doon deug yalla di leen dimbali ngeen am information yu wér yeen tamit ngeen comprendre bàyyi di solal nit caaye suba ngeen solal ko ngemb am nga yalla liko yalla defal Ousmane Baye Ousmane Dramé yow tamit ñing lay nuyu bu baax di la siyaar nga doon sunu baye yu baax di nek ci combat bi woyof trop doon exemplaire nak barké yalla doon exemplaire nit ku disponible nga ko xamni ñepp nga jox yitté lolu bok ci lu am solo ci lu am solo ñepp nga jox wallahi ku am yitté ci doomu adam yalla na la yalla sam lolu dafa doon ci critère yo xam tamit ñi wax war nañ jang lolu lélé nak jot nak du am tamit gi ni comprendre ndax nit koo xam ne da ngay wax ni am tur ndeysaan da ngay gis ndeysaan ñi lay bàyyi ci ay audio message yëpp boo ko toppee ku moytuwul day yàq sa dund ku moytu da lay yàqal sa kii mais ba tey yitte it loo lu nit mën a am rek ndax mënoo foo toll di wuyu téléphone wala foo tollu déglu message yëpp waaye tamit ak yëg-yëg day am ci doomu aadama nga xam ne kii moom dafa am yëg-yëg ci nit dafa am yitte ci doomu aadama ñi ngeen di déglu am leen neen am yitte si ñoom na nan nanu kii daal yàlla nañ baax daal jikko yu baax rek ñu tax a jóg di jéggalu ñun tamit suñuy su suñuy wax ak suñuy lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ci dëkk bi mu jëm ci ay ñoo xam ne nit fonk nañ leen wala dara jublu ci lu bon lépp luñ ci jublu ci lu bon yàlla xam na te lépp luy caaxaan yàlla dina ko teg ci table bi mu leer subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk